salaamaaleykum mbokk internet yi ziar nañ leen ñëw ak fii ci seen chaîne bii di Effect TV ah indi leen suñu émission bi nga xamante ni moom la wax le motif de la semaine ah, ma ci ànd ak comme d'habitude sama camarade Oulay Oulay nuyu nañ la ziar la. maa lay fay soxna Diarra du kontaan ci émission bi la naan maa ngi maa lay bëgg bu baax a baax daal. bëgg nañ la bëgg mboom mbokk internet yi nga xamante ne ñoo safu seen chaîne bi di FM TV fas yéene indil leen li ñu ko waxee rek le motifu semaine bi euh, li ñu jëkk a wax li ñu jëkk a sax mariage Pendo bi Pendo bi gars yi nee nañ mariage bi mi ngi def bruit si si si si si site si internet bi. Pendo ak euh, Bouba Bouba bu bu infidèle. Ah. mais est ce que waa ñoo dugal vidéo yi en tout cas ñu fa nekk ku nekk naan sa sama àjjana di ruube xaw ma dañuy tooñ xaw ma nag. est ce que ñoom si seen bopp nekkuñu du foo Bouba ak euh, nu tuddati. dama yaakaar dañuy foo nag ndax ñu bëri ñu ngi naan euh, tournage clip lañuy waajal. Mm-hmm. mais lu ci mënti am daal xam naa ne dinañ ci lu ci mënti am dinañ ko indiwaat fii leeralal ko nit ñi en tout cas mi ngi def euh, bruit si si mm-hmm. si si si si internet bi si YouTube bi. Ah, bi ci topp mooy. Mhm. waaye Y'en a marre. waaye Y'en a marre xanaa. <laughs> wàllum passeport diplomatique. ndeysa passeport temps yëngal na dëkk bi de. kumbal na Sénégal kay. waaye Pape Alé mu ngi ciy wax mi ngi naan mi ngi mi ngi def ba ci accusé kii di doomu Macky Sall bi. Ah. Amadou Sall nee na Macky Sall na def enquête te mu njëkkee ko ci. si doomam doomam. lain ko rek nee na nee ja bu jaayam rek doomu Macky Sall ko kay ay wax de ah en tout cas tuumalante bi baaxul dafa ñaaw pour lan mu koy njëkkee ci doomu président Macky xanaa nee na nee na yu bëri à l'extérieur ay délen hmm. ay sénégalais yoo xamante wuyu wuyu ay wuyu lañ noonu la ko waxee loolu ëpp na ñu ngi yor passeport diplomatique te kenn xamul ko mu ne donc nañ def enquête commencé ko mais ñoom nañu wax ci seen cas bi d'abord nañ lijeenté boobu man loolu lay wax ñoom nañ wayana ma tamit def nañ dem conférence de presse ah. accuser Macky Sall yàq ko lu melni xamé ah, à tant que président rafetou ah yak nañ ko lu melni xamé dal nenañ tam nenañ dal nee euh walu dañu bëgg démanteler démanteler ki mouvement bi nga xamanteni mom modi yana ma nenañ jëm nañ ci ñoom lu nekk ba sonu mënuñ leen mënul amuñ dara luñ leen takkal wala luñ leen tëjee prison. ñu jéem a salteel seen mouvement bi daal pour nit ñi weddi leen. kon ñoom daal dem lool li li ci tënk loolu lañ fa hmm. jot a wax nee nañ justice bi dafa nekk justice boo xamante ni simulacre la maanaam turu justice rek la mais. lu hmm. du au fait au vrai sens du terme. tekkiwul la justice bi di di tekki daal. d' accord waaye Y'en kon lan lañ bëgg wax foofu que ñoom. Euh, ñoom dañ leen tuumal affaire bi. dañ leen tuumal lañ bëgg Euh, nee na affaire bi lu tax ñu single si waayaanamaa bi complot la nee nañ bokk. complot la waaw nee nañ vidéo yeeg yooyu yëpp complot la pour rek jéem a démanteler mouvement bi. d'accord daal loolu loolu loolu lañ fa jot a wax. donc bu dee dañ leen complot yal na leen yàlla jàppale. <laughs> bu aussi seen jëf la. <laughs> maa leen di ñaan bu ñu jógee si lii ñu bañ ko defati té xamné dëkk bi ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp wara and défar Sénégal ndax amuñu dara lu dul Sénégal kon donc bu ñu toogee fii du def lo xamantene day délo Sénégal ginaaw du lu baax bu lo xamantene daf ñuy jëmele kanam ci ñun ñëpp lay metti ñoñu ñu ñoñu mom euh en fait peut-être mbirum seytaane la dal mhm. nañ leen ñaanal yal na leen borom bi jappalé ba fofu ñu nekk ñu genn fofu lu leen fa duggal bañ bañ leen fa dugalaat daal mhm. xam nga ñu fa musul dugg aussi yal na leen foofu umpo parce que rafetul te ku fa dugg sax xam nga ne fofu metti na waaw ba fi may wax ak yow ni kii di simo ak ak euh, kilifa ñi ngi mandat de dépôt ak waaji nga xamanteni ni moom la ñuy wax Thierno Amadou Balle moom lañ sekkaloon mbir ma mhm. ñoom ñëpp ñi nga juge bi yóbbu na leen fee mandat de dépôt ah mu jënd leen Simon nag même même même avocat am moom. Hmm. jël def na dul def na lu nekk dem na ba ni Simon def ne il n'est pas en de de. de force hmm. instant bi dafa feebar dafa AVC mënu mënul supporter prison bi et yooyu yëpp jox nañ ko juge bi mais finalement hmm. daal juge bi dafa mel ni daf leen bëgg kii daal koñe daal da leen bëgg a téye waaw mais aussi euh, doy na waat tamit en tout cas lu ci mënti am daal nañ ko leeral askan bi mu leer ñu xam ne ndax ñoo def wala defuñu wala parce que tuumal nit aussi baaxul de. waaw dañ leen ko tuumal moom loolu moom. lu ñaaw la lu bon la ndax doomu deru doomu aadama waroo jël lu ñaaw du ko si teg. bu dee aussi tuumalu lañ ko mais nañ bàyyi yoon mu def liggéeyam. parce que mhm. dëkk bi aussi dëkk dëkk yor la. dëkk yoon la te bu buñ nekkee fii du xool ay yaama neex rek dëkk bi du dem fenn. Mhm. kon nañu jël lépp teg ko. justice bi ñëpp la fi war a nekkal. voilà ñëpp la fi war a nekkal muy muy pouvoir te am na ñaari membre Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ay xamante ne ay député député lañ ñoom tamit. Mhm. ñu leen di tuumal si wàllum passeport yi te ñoom tamit kenn gisu leen justice bi indi leen benn problème waa assemblée ba léegi jëluñu jëluñu benn euh, séance pour def euh, pour lever seen immunité parlementaire te au début. ñoom ci seen bopp seen seen président groupe parlementaire bi génn na fi ne ñoom duñu protéger benn député que mu nekk euh, membre majoritaire bi wala mu nekk opposition bi d'accord mais ba léegi daal gis nañ ne bosu kilifa ak buy bu bu Simon hmm. moom lañ yóbbu justice moom lañ traité mais bu waa benn bokk yaakaar ñaari député yi nga xam ne ñu leen di tuumal ci wàllu passeport diplomatique tamit gisaguñ leen ba léegi ñu dem justice ñoom tamit leeral est-ce que ñaari député yooyu am nañ prof si ñoom Ah, ay profil leer est-ce que am nañ ko ba du leen topp ah, aussi journal yi di wax nañ ko parce que yoon du topp loo xamante ne amul preuve si ah am nañ preuve de parce que bu am woon preuve tamit même seen seen seen membre bi du génn ne ñoom duñ protéger kenn non ñoom ñoom loolu moom leer na waaw te man am naa confiance si loolu xam naa ne duñu protéger ku yàq dëkk bi est-ce dinañ bañ a protéger ku bañ a bokk ci ñoom tamit mun na nekk ah parce que ñoom ñoo ñoo wóolu ñooñu ba <laughs> teg leen fu leen teg ñooñu bu nekkee fii nar a yàq réew mi ñoom am na. ah bu fekkee duñ protéger kenn kenn ils n'ont qu'à lever leur immunité parlementaire ñu dem wuyu yoon ñu ñu leeral ñoom tamit comme ni ko kilifa ak euh, si moo defee loolu rek moo ci nekk. ah man dama ah. gis ne amuñu porof si ñoom moo tax. Ah, bi ci des moo di euh, Fambaye Fambaye fi mu toll nii sonn na de oh, sonn na torop nañ ko jàppale. indi nga Adamu Adamu Adamu maa ngi koy gis ba ki dem mu ne moom moo ko lijjantil prise en charge fee benn hôpital bu nekk Italie il paraît que magam moo fay nekk di fa liggéey. Mhm. mu waxtaan seeg si affaire Fambaye bi wax ko ka expliqué ko kaam. Mhm. kooku waxtaan seeg seen waa hôpital bi ba ñooñ nangu ko jël en charge mais nag. Mhm. affaire bi nekkul lu yomb parce que dafa laaj. Euh, vol médicalisé. ak et ay frais yu mu war a def ñu egg ci ay ba. moom moom moom si boppam Fambaye mu ngi ko expliqué ne xaalis bi ñu ko war a fajee dafa bari lu egg ba ci cent millions it pare. ndeysaan ñëpp nag ñu ngi ñu ngi ci kii bi euh, site yi di ko di di ko sàkkul ndimbal ba ki dem maa ngi gis ca ba Thiès di si wax bay jooy. mu ne président Macky Sall si boppam moom. Mm-hmm. na na ko jël en charge. ñu bàyyi cëru Fambaye yi ñuy Fambaye yi ñuy wane si si si internet bi te man foofu man d'accord naa si ak moom daal parce que. loo xamante ni ni kenn rek moo ko mën a lijjanti. Mhm. dafa da ci war a taxaw. Mhm. parce que cas yu mel ni Sénégal c'est rare ñu koy gis nii nii mun nañ leen sax c'est une première mu am Sénégal. Mhm. donc état bi war na ci am mën benn taxawaay boobu noonu def ci luñ ci war a def ba ba ba ñu mën ko faj. ok président ki Sall ñu lay ñaan nga dugal ci sa loxo jàppale. Euh, ndaw soosu parce que affaire bi métti na daw na yaram. Mhm. kon président ñu lay ñaan nga jàpp si. Mhm. xam naa ne am na ñeneen ñu si jàpp ñi nga xamante ne yàlla. Euh, may na leen ñu ngi koy defal ñu ngi koy defal ket fu nekk fu nekk. Mhm. mais lu gënoon gaaw daal mooy état bi taxaw si am si taxawaay daal am na loo xamante ne buñ ko defoon rek. vraiment du du loo xamante ni lu jafe la daal war nañ ko mën a def ñu ñu faj nit ki parce que tam ni ko Caba Thiès waxee ma loolu moo gën a daw sama yaram cëru mm-hmm. xale bu jigéen bi ñuy jël di ko wane si si internet bi ñëpp di ko xool di ko ketal yooyu tamit dafa war daf dañ Macky Sall da ko war a dakkal daal dañ ko war a comme ni ko Caba Thiès laa koy waxaatee jigéen la nañ ko dañ ko war a takkal comme ñoom mën nañ ci dara nañ nañ nañ ci jàpp waaye xanaa ñi ñaan suñu njiitum rek mu dugal si loxoom état bi na si dugal loxoom bu baax a baax mm-hmm. ñi nga xamante ne moom am nañ moyen bi ñoo ngi def effort mm-hmm. mais ku mel ni Wally Seck Wally def na ci lu mu mën waaw Wally def na si lu mu mën dooleem yem rek lay yem voilà franchement ñu si jot a dugal seen loxo ñu leen di remercier mm-hmm. mais ñun aussi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yal na wér ba toog bu ko nettalil boppam mais état bi tam na si jéem a dugal loxoom jàppale ndaw soosu affaire bi daw na yaram te metti na metti lu metti la ku ku mu doon yow rek di yow tamit mm, noonu waaw ñu ñu ñu kii ñu tëj ñu tëj waaw ah man pare doyala bu ma de looy dooli doolil <laughs> bët kaa nga indi xanaa <laughs> waaw fu mu ne nii jot na heure bi xoj nañu xanaa ñu tàggatoo mhm. may ñaan suñu réew mi ñu nekk fi bi yokku mhm. ak sutura bi dañu bàyyi du waxante yu ñaaw yi tuumalante bi dafa ñaaw torop ñu ngi leen di jaajëfal di leen dikk daje beneen yoon incha allah.